dëkk bi askan bi la fi nekkal te boo fi nekkalee askan bi dangay def li nga xam ne moo méngoog bëggi bëggi askan bi donc mooy bu fekkee ne assemblée nationale dafay accordé wu ci <clears throat> di liggéey à ce que euh, li nga xam ne mooy jóge ci ngiru nguuru euh, président Bassirou Diomaye Faye méngoo ak askan bi ñu ànd ceeg moom loolu du jar kon su boobaa ñu koy tas ndax su boobaa liggéey lay doon mais bu fekkee ne dafa am leneen la cay lalu ah li gën mooy. nga ut ñi nga xam ne nii xëy na peut-être ñoom dinañu ñoom ñoo wóor pour que nga mën a woyal sa li nga xam ne loolu nga bëgg a bëgg loolu nga bëgg bu fekkee président mais nag foofu tamit dafay am couteau à double tranchant lu tax ma wax loolu mooy euh, bu fekkee ne euh, ci ci ci ci jub jubal jubant bi ci boppam surtout ci jubant bi comme ñi ngi koy def ci justice c'est au oh, ça sera aussi l'occasion pour def ko ci assemblée nationale parce que gis nga euh, am na gis nga député yi boo gisee ñu néew doole dëgg dëgg dëgg dëgg mooy mbirum politique bi nga xam ne moof moo fay am il faut que ñu nekk ci dëkk boo xamante ne nii ku ci nekk da ngay mën a dangay ngay mën a da ngay mën a da ngay mën a libre pouvoir bu ci nekk da ngay mën a exercer li nga xam ne nii moom lañ la sant nga def ko ci ni mu ware euh, euh, jamono gi euh, ñu ngi wax que ne ñi ngi ñi ngi ñi ngi wax que ne war nañoo war a mën a supprimer li nga xam ne ni mooy assemblée nationale ci bu fekkee ne wax dëgg fa yàlla dafay am benn euh, pression politique bu fay bu fay bu bu fay tegu ba bu fekkee ne li nga xam ne nii mooy lii lii njëriñ askan wi bu fekkee dañ ko nara a dañ ko nar a euh, saboter mais mieux vaut ñu jëlee leen fa après indi ñoo xamante ne ni dinañu méngoo ak li nga xam ne mooy dëgg-dëgg euh, euh, euh, bëgg-bëgg askan wi mais man li ma gëm mooy que ne assemblée mu mu que majorité bi nekk majorité présidentielle comme majorité opposition man li ma gëm mooy assemblée nationale dafa war libre assemblée nationale dafa war a méngoo ak li nga xam ne ni loolu lañ leen a fale gaa luy metti nag lay doon <laughs> maa ngi gis waa mi ngi noonu <laughs> maa ngi gis biral di ma xool waaw rêve bu neex ngay xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga wax lool gis nga koo xamante ne nii dañ la ni ñu falee président noonu la ñu falee ñi nga xam ne ñoo nekk assemblée nationale même bu fekkee ne dafa am fo foo xamante ne nii foofu la ñu bokk fa lañ jaar mais euh, séparation des pouvoirs man pour man Sénégal lu réel la war a nekk ga même bu fekkee ay rêve la sax même bu fekkee ay rêve la non c'est un rêve qui peut être réalisé. waaw waaw des actes qui te gars yi te il y des mécanismes yoo xamante ne nii par exemple ku mel ni euh, Cheikh Omar Sy te mu nekkoon euh, euh, député assemblée nationale mais xalaat na ci ay ay ay piste yoo xamante ne nii ah day permettre assemblée nationale bien vrai que ak appartenance politique boo mën a am. mais nga méngoo ak li sa sa liggéey méngoo ak li nga xam ne nii mooy bëgg-bëgg askan wi. mais la preuve a été administrée par euh, Guy Marius Sagna. la preuve a été administrée par euh, Abbas Fall. mi ngi noonu pour wane ni ñun ci yéen lañ bokk. mais fu ñu leen war waxee dëgg dañ leen di wax dëgg. mais opposition euh, plutôt opposition assemblée nationale pourtant am na ay euh, députés yoo xam ne ils ont toujours fonctionné ainsi bokk ci nguur mais fu ñu waree waas nguur gi ñu waas ko. wala fu ñu waree wax dëgg nguur bi lañ lañ koy def mais député du peuple boobu. Mhm. gis nga noonu la mel mooy yaakaar naa moom fa tabb nañ ko. DG la ma jumul Mariam Soda Ndiaye kooku bu kuy booy diglu ay waxam eh, assemblée. parfaitement xale la mais. Mhm. bés bu yàlla sakk li muy jàmbatal askan wi. yar gi teg demal mosuma koo dégg muy taxaw di xas benn ministre wala di xas benn nangam te pourtant mu bokk na ci gën a nekk xale ci assemblée. du caaxaan mais dama ko doon yàgg a bàyyi xel moom pour man ci tàggat lay doon mais nag euh, Thiala li Cheikh wax nii man fi ma ci ànd ak moom mooy malheureusement on sera obligé benn moment mais d'enlever ñi fi ne pour mën a am majorité parce que kaa ma xaman am na loo xamee ni tey lu gouvernement euh, du ko yóbbu assemblée pour loi wala ñu war ko voter ndax day jàpp ni bu ko yóbbee mën nañ ko teg minorité maanaam ne ko duñ ko fi jàllale parce que peut-être Euh, pour poñ lay doon pour opposition actuelle bi parce que ñoom ñoo nekk fort assemblée pour ne ni non non duñ ko jàllale da ngeen ñu keppoon ci lële léegi yéen a ngi yéen naan jaan ci xaw ma jaan ci suuf xaw ma tànk ci suuf jaan ci suuf yàgg yàgg tase ñëw tegal la benn affaire boo xamee ni c'est pas normal mais moo tax souvent euh, li nit ñi di def bu ñuy doog a falu dañuy fexe d'abord jéem a naxtaan ak député yi. pourtant le président de l'Assemblée nationale demoon na ci président Bassirou Diomaye Faye au début pour ñu mën a xool comment il parce que c'est quand même moom président Assemblée nationale ci wàllu suñu architecture institution c'est la deuxième personnalité de l'État ça veut dire la deuxième personnalité de l'État et de l'opposition euh, muy président Assemblée nationale mais faw sur yenn question majeures yi yoo xam ne ça les Sénégalais député bi foo mën a bokk nga jàpp ni sénégalais yi la concerné muy président bee ko indi wala opposition boo indi nga mën ko voter pour les sénégalais bu boobaa la ñuy doog a am un vrai député du peuple euh, ni ko maître El Hadji Diouf doon waxee je suis le député du peuple mais député du peuple ngay doon pas député d'une parti euh, de du peuple maanaam d'un parti politique ou député de euh, d'une euh, d'une coalition mais député du peuple où tu parles pour le peuple majorité bi ñuy wax faaw mu am ay coppite changement yoo xam ni. ci côté député yi si boppam lay nekk foofu assemblée. c'est sûr mhm. parce que tey am na ñu nekkoon ministre lu ñu bëggoon mooy dellu assemblée. par exemple pour mhm. nekk nekkaat député. Mhm. Euh, je pense que c'était le cas pour euh, Abdoulaye Diouf Sarr maître Omar Youm euh, ñeen ñi ñu mel noonu. je sais pas ce que dit le règlement intérieur de l'Assemblée xam naa suñu Pape Doudou Wade dinañu ci rectifier sur ce plan-là parce que am na lu mu ci xam lu bari sax mais. boo xoolee depuis de tout temps presque boo bëggee gouverner tranquillement book wala sans beaucoup de difficultés da ngay jéem a am majorité assemblée nationale pour que mu bañ a am justement système bu lay mën a bloquer euh, et ça c'est valable pas seulement au Sénégal demal France benn moment bi ñu gisee nii ni euh, fi ak ñoom Marine Le Pen ak yooyu France Insoumise ak euh, ñoom nationalistes yooyu xam nan la leen tuddeeti dañoo jiitu woon wala ñu bari woon da lan lañ doon wax cohabitation boo xam ne même président day di jéem a négocier ak ñële pour bu fekkee ne dafa bëgg a jàllale yenn yenn lois mhm. c'est pas te comme régime présidentiel la ñu nekk tamit. Mhm. Euh, il faut nécessairement nga am majorité à l'Assemblée. À l'Assemblée. Senghor attente yi moom la ñu dëgmal par rapport ak. Euh,